bu ko defee nag màggal gi Tuubaa lañ koy defee loolu mooy di def ci maanaam waxtaan wi xëy na bu fekkee xaj na baax na boo xëy na ma tënk ko rek mooy màggal Tuubaa dañ koy defee Tuubaa Sëriñ Fallu moo ko fa woote Sëriñ Tuubaa ci jamonoom ci mille neuf cent vingt et un ci la wax digle woon màggal gi waxoon na itam xiir laa daal moo ko daa nekk di wax ne ba mu demee ci tukki ba day def at mu ne natt yi ko yàlla natt bu déwee ne da koy ful maanaam li lim daj ren bu déwee ne ñaar ñaar ñaate loolu lay daj suñu waa dana am dana àgg ci fàtte la la ma dajoon daaw ngir ngir li ma daj ren su déwee ne ñu fulati ko mu nekkat maanaam ñett ñetteel ñetteel yoon bu déwén jégee ñu fulati ko noonu lañ ko toppee woon ba juróom-ñaari at yi mat nee na suñu borom xamal ma ne ma ne xamal ma ne ma tiyaaba ji ak daraja ji li nga ci waroon am moom am nga ko ci waaye nag dinaa la ci dolli at mu ne li ma la fay ren su at su déwénee dama koy defaat lu ñu doon dama koy double joxaat la ko su màggal gi jotaatee déwénee ma double waat ko joxaat la noonu la toppee moom xib laat mooy wax ba nim ñëwee njëriñ ci la nag woo murid yi ne leen nag yàlla def na ma nag ci ay xéewal ki may yoo xam ni lott naa ci sant ko man dong moo tax képp koo xam ne sama mbég sa mbégal na nga ma ci sant la yàlla bis bii muy fukk fan ak juróom-ñett ci weeru safar saa yu del seete saa yu del seete dara wax it ne képp koo xam ne yaa ngi koy fonk yow man xëyam buñ fa demee lu ma ci yàlla fayee du la upp loolu nun moo ci gën a xéwale kon ci ci xew siñ to ma daj coono yi moom ginnaaw nun dañ ñu benn coono te buñ dee yoon xam li ko yàlla fayee du nu ump ci màggal gi ni màggal fukki fan juróom ñetti kooku jar war naa tax murid yëpp dégg nga am def gar ci seen tànk tubé ci ci màggal ak yu bëri bëri yoo xam ne suñ ñëpp laat daal ko wax ci njëlbeenam murid yi ceeb laat nee na moom noonu ci suñu njëlbeen tëbaskiwaat rek lañ xamoon ci turu màggal kenn tawu ko tudde màggal tëbaskiwaat lañ ko daa tudde am mag ñoo xam ne sax dañ daa def ñoom xar ni ñu war a rey ci tëbaski dañ ko bàyyi ba màggal ndax dañoo xam ne Seydina Ibrahim defalul dara te Seydina Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu moom mooy kenn defal lépp Sëñ Tuubaa bi mu dëkkee loolu nag ci leen ci la leen woo ne leen man du ma sos bidaa du ma sos sunna soo xam ne daa juyoon sunna si yéen tamit salaam salaam ba tax nag bu ko kenn woowee te tabaskiwaat nañ ko woowee màggal bu leen ci julli itam waaye nag lu ci waay rafetle na nga ko ci génne bu bis laa lu ci waay mën ci garnde ak i xéewal na nga ko def jox ko ñu ko yeeyoo am na feneen foo xam ne ci beneen dénkaane boo xam ne caa boole itam na ngeen ci di sant yàlla ci jàng alxuraan billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk taalibe yi noo ngi leen di siyaaraat bu baax di jégalu bu baax kilifa yu baax yi ñuy déglu ci kàddu gi noo ngi tolloon ci wax ne dama tolloon ci wax ne màggal Sëriñ Tuubaa moo ko sàkku ci képp koo xam ni mbégam sa mbir la ci jamono bi itam ñu ko daa defee kenn ku ne fa nga ne rek nga ko daa defee sëriñ Fallu mu baax ma bëgg ñëpp au yu noonu la ko waxee ci kasetam bi bi ñu koy wax doo xam ne man damaa ci yéen ñëpp moo tax mu digle ñëpp di ko def ci Tuuba bu ko defee itam sëriñ Tuuba li waral màggal gi mooy sant la ko ci yàlla subhanahu wa taala maanaam li tax ñuy dem di màggal ak lañ fay def lépp sant yàlla lañ fay def ngir xéewal yi xéewale suñu sëriñ boobee suñu sang boobee si Ahmadu Bamba radiyallahu anhu arda Sëriñ Tuubaa xam ngeen ne dafa liggéey boromam liggéey bu sell te set boo xam ne monsieur su gis ku liggéey lu mel noonu Sëriñ Tuubaa li ko yàq jaral man mosuma xam ku yàlla jaral loolu mësuma ko dégg ci téer yu bari yéen naa ko yooyu moo tax yàlla fay ko ci itam fay boo xam ni yomb di nga gis ku mu ko joxat moo tax mu daa wax ne rabixtu fi tijaarati fi xurgati wa ashkuru atama inda turbati maanaam jaayante bi ma jaayante suñu borom tabaraka wa taala si bi ma nekkee ci tukki bi jaayante googee ak lañ fa jaayante lañ la ma ko jaay lan jënd bénéfice bu kawe laa ci am maanaam jaay ma lëmb te jar na te bari na dégg nga xéewal yi ci topp ci njaay moo tax nag dinaa sant yàlla ci sama suuf fii fii ci Tuubaa ak Darou Mouhty foofu it am na lu am solo loo xam ne xëy na guddi na sax waaye moo tax ñu ci fekk mooy fii Tuubaa li gën a yéemu wax nañu bari duñ ko seetlu mooy fexe na ba màggal Tuubaa ci say màggale mu def ci sa xel ne ak cant ak xéewal mooy nekk sa xel doo fàttaliku coono yi mu dafe fi mu ne am na kuréel ci biir islam yoo xam ni ñoom seen kuréel mi ngi sosoo mi ngi sosoo ci ay métti ku mel ne chia yi ci misaal nga xam ne ñoom at mu ne bu ñuy fàttaliku karbala ci métti ak naqar lañ koy fàttalikoo di tuur seen i deret ak di ci mere pour ñoom ndax dañu jàpp ne ñoom seen i maam doon def loolu loolu day dundal ak coxam ak mbañeel ci xol yi te suñ tubaab dégg na loo xam ni bu ne woon dee leen yow sant sant ma yàlla ci mucc bi mucc ci noonu yi buñ fay dem di fàttaliku ya ya nga xam ne moom la ko tubaab yi doon def ku ci defee bu tubaab di ko dugg ba tubaab du di ko Sénégal mu wax nag ni man suxiltu bi sukuri an tadakkuri ma qad jara bayni wa bayna al askari maanaam man yitte woo sant suñu borom tabaraka wa taala ci xéewal yi ma defal daa fees dell sama xel ak sama xol ba dootuma fàttalikooti coono yi nga xam ne moo def ci sama diggante ak digg ak tubaab bi dara wax ne saxala ni sukru ilahin qabila kulliyati an dikri maadin min balaa maanaam li weesoon ci ay balaa ci musiba du toq sax ci sama xel ndax man sama xel waxtu wu ne nu may sant yàlla ak xeeti sant yi yi may yi may jaar ba sant ko ba mu gërëm loolu rek la moo ci topp kulliyati istagnat kulliyati istagnat an istikaay wa kulli ma yajuru lil bukaay sama lépp dafa maas set wecc doylu wali jàmbat ak lépp loo xam ne day jur ay jooy ak i njàqare maanaam noonu la wëlbatee mbir mi mooy sax na ba ak cant la moom màggal gi waaye des ci ñun day màggali tubaab di ko wax lu bare bari ba des te léeg-léeg suñu xel du dem ci coona jam fa daj te nag li ma ko waxoon ci ñëw leen daj na fa loo xam ni maanaam kenn mënu ko nekk am na misaal mel ni misaal rek moo ci bëggoon a misaal waaye dama di guddi mooy koor gi fa njëkk gi fa woor te te nett li ko ci jégaw sukkandiku wala suñu mën lañu ñëw danga nett na ko jégaw na di koor koo xam ni woor na ba weer wa jeex te aw ñam dugg ci génn yam nga xam ne bu ma saati dog day dem ci garab yi dagg ci dégg nga am nag ko ba dara ci ndox dox mu fexe ba mu ba mu dox ko waral rek si tool bi moo ko nekk bi moo ne man la tax sax mu mën a xam weer yi mooy ba ma àggee dama tàmm di bind weer yi bis bu ne mu bind ko bu weer yi jeexee ma xam ko moo tax bu woon loolu neen du ma xam weer yi ndax réew mi yëpp ay yéefal kenn yittewu fa dégg nga am lu baax ak ak ak ñu baax suñ tool nekk na wax ne koor boobu ba mu jeexee ñun dama génn ci penc ma maanaam ci place ba fa gën a ëpp ci ci penc ma di julli korite nee na fi ma taxaw ni ñaari xale jigéen yoo xam ne ña nga toll ci xam ne seen ndaw ñëw ba tolloog man taxaw di ma seetaan na julli gi may julli rukkoo yi bu ma nee allahu akbar nee na ñu xaqataay nee mu jug si jóot ñu xaqataay ñoom la ne mosuñu gis julli def mu def leen ay reen nee na bu ma noppee ma taxaw di xutba yëpp nee na ñu ngi taxaw di di di di xaqataay ak di reetaan nee na boo noppee nag ci laa wax ne allahuma innaka taalamu anni sumtu shahra ramadana kama amarta wa aftartu waxtasaltu wa sallaytu kama amarta walakini lam ajid ma uaddi bihi zakat alfitri walaw wajadtu la ajidu laha masrifan fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa taqabbal minni kulla ma stata'tu min awamirika wa fa'altu waktub li sawaba ma ajaztu anhu wa nawaytu wax ju yéemu mooy bu noppee neen dafa toog wax ne suñu borom xam nga ni man kat woor naa weer wi ni nga ko diglee ba mu jeex tàkk dog naa itam bi weer wi jeexee sama koor sangu naa ñëw di julli loolu lépp ni nga ko digle def naa ko ne waaye nag lu ma génnee murum koor laa amul su ma ko amoon nit awma kenn ku ma ko mën a jox fii ci bërëb bi moo tax sama murum koor mooy maa ngi sal maa ngi la ñaan nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad yaa na nga julli ci moom te sëlmal ci moom te nongul ma mboolem li ma jëf te nga digle ko te nga bindal ma di yoon boo xam ni dana kawe njort maa te nga bindal ma yoonu li ma mënut nga bindal ma yoonu ci la waye ci foofu la waye itam ci jotaay boobu daa mel ne ci la waye xasida gi di tàmbali ala innani usni ala xayri munaami xasida boobu boo gisee tàmbali bi tàmbali bu yéemu la dafa wax ne suñu borom samay noon bi say noon ñoo ma sànni ci géej gi ak coono yi yépp ñoo ma ci dugal ni ki nga xam ne sa xarit ba ibrahima alayhi salaam ay noonam dañ ko dugaloon ca sawar woowee bañ ko ci dugalee nag danaa wax ak sawar ni ko yaa naaru kuuni bardan wa salaama ala ibrahim nekkal jàmm ci ibrahim yow sawar wi mu mujj di àjjana ci moom daal ca teg ne ko yaa yow suñu borom yow suñu borom yaa xay yaa qayyum ci darajay shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ak ci darajay loolee nga wax ibrahim yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim maa ngi lay ñaan nga tàggatal ma géej gi ak waa géej gi ak mboolem noon yi nga xam ne ñoom la sorom di say noon te nga bégal jullit ñi ñu góor ñi ngi jigéen ñëpp fi ma delluwaat nag ca sama réew ma ca Touba ak Darou Salaam ñaan bu gudd la ñëpp yëgal ala inna ni ala inna ni usni ca la tam na xasida xasida bu yéemu ala inna ni usni ala xayri mun ami wala astaki lil xalq min faqdi anhumi fa man dannani fi xurbati la tadallulin ila gayri مغل واسع فهو قد عمي له أشتكي ضعفي وفقري وغربتي وأرجو رجوعي عاجلا خير منعمي فخير جزاء gàttal gi mooy lépp da ko delaat ci suñu borom mooy man du ma jàmmal na jëf lu mbir mu ñetti métti suñu borom rek ci lay delloo sama lépp ci biir xasida gi tam ci la wax ne fa man yulqini fi lbaxari fa man yulqini lil jaxdi fi lbaxari fa man yulqini lil jaxdi fi lbaxari xurbati fa man yulqini fil baxri lil jaxri maa ngi fàtt maa ngi jégalu bu baax faqat jaani fil baxri juudul mukarrimi maanaam ci géej gi la ma yàlla defal juudul mukarrimi tabuk suñu borom bi la maanaam la yàlla jëfante man ci ci tab boobu la jëfante man mooy lan ma jox xëyul ci ay xiyaas ak xisaas ak napp kon loolu mooy màggal gi coono yooyu am na waaye coono yi suñu daa feex bañ fàttali bañ fàtte ko def suñ sant sant yàlla ak sant lekk suñu borom moo tax képp ku dem Touba itam na loolu njëkk ci xatam nga xam ne Touba itam bërëb la bu sell bërëb bi nga xam ne Serigne Touba su tëdd boo bukk tëg bërëb beneen bu man doon am na kenn waa ji baax di wax ñëw Touba suñ annax di xawin bu sëñ bi ñang sëñ bi ñang sëñ sëñ Modou moomu ñang nekk na ko te wax ne ko kilifa bu baax la dafa wax ne Tuubaa wax ne bushra li man xalla fii Tuubaa afatiqati yurjaadahul xayru wal irfaanu wal nuuru képp ku dikk bii bërëb daal muy Tuubaa na nga bég te xam ne faaw nga jëlee ci kenn ci ñett yi faaw nga am am nga ci xéewal mën naa ne xéewal yi ñuy lekk faaw ñu bernde la irfaan mën nga fi jëlee xam-xam mën nga fi jëlee itam ak leer ñett ñooñu ñoo leen Tuubaa ñi nga xam ne maanaam xéewloo leen fa yóbbu maanaam seen i jëmm moo leen taxawee ak ñoo xam ne seen xel leen fa yóbbu ngir bëgg xam-xam ak luy xam ak ñoo xam ne seen xol leen fa yóbbu te mooy ñëpp ci biir yi ñooñu ay leer lañ leen di gën leen ñi seen xel tax a dem moom ñoom ay xam-xam dañ ko fa jëlee incha allah ñu leer nañ kon ci dem Touba nga xam ne ñëw na ci bërëb bu sell mu fexe ba ñi ñuy màggal lépp na dëppoo suñu seetlu dara wax ne nañ ko màggalee lam wax. ci gàmm moom suñ bi wax ne na way taxdimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati maanaam màggal gi ak liñ koy def lépp na tegu ci sunna suñu bi suñ diwaa ci boobu daa suñ seetlu moo daa wax ne suñ bi daa dig leen nañ koy màggal ci jàng ak bernde ñaar yooyu mënta ñàkk bernde yi mënta ñàkk muy defare xéewal di ko joxe waaye njàng mi mënta ñàkk njàng mi ñu ngi tax ne jàng alquran suñ ñëpp daa daa wax ne ku ko man murid bu ne na nga jàng ñaari kaamil benn bi nga def ko addiyee Sëriñ Tuubaa benn benn bi nga def ko addiyee yonente bi alayhi salaatu wa salaam suñ seetlu ñëw yokk ci benn mu ñetti kaamil sëñ bi fi ne loolu la yeesalaat bu mujj bi nga nga ñaan ci xalifa bi ak mboolem mujj yëpp bu ñu àggee ci magal gi tam nga nekk ci jàngal quran ak tudd yàlla goo man sëñ sëñ fallu ba mu ko wootee discours ba mu ci def daa gudd dama ko bañ a jàng muy gën a gudd waaye dafa wax ne nii ngeen koy màggale nii la bi tilaawati alquran wa dikrillahi bi anwaihi wa qiraati alqasaidi wa itaami taama li taami lil yataama wal masakin wa silati rahimi wa ziyarati saalihina wa ma jara majraha suñ falu suñ suñ falu ba lox mooy na ngeen ci jàng alquran di ci tudd yàlla ci bu ngeen man rek moo xam jéggalu la wala tudd baatu bi laa ilaha illa allah wala julli ci yonte bi ak di jàng xasida di jàng xasida dajale na mbooleem xeet tudd yàlla yooyu rawatina xasida yi salaatu ala nabi yi comme jaari batul maraaxi ba nuuru dayra ni gën demee ak di jox aw ñam di ko jox jirim yi ak miskin yi di jokk ak bokk ci bis bi te di ci siyaare gaañu baax loolu mooy yi ñuy def ci Tuubaa bu ñu amoon jot dañ ko gën a teqale waaye man maa dikk ci benn muy jokk ak bokk mi ngi ci siyaare waa ju baax it bokk na ca moo xam ñiy dund ak ña nga xam ne ña denc nañ leen maanaam maanaam ñu fa tëdd ci suusa ak ñu nekk ca kaw suusa ñëpp ngay siyaare ndax boo demee ca bërëb bu mel noonu bërëb bu mel ne fi Sëñ Tuubaa tëdd ñu bari xamuñu xaqam ay bërëb bu rëy gi noonu boo xam ni maanaam sikk maanaam nun sikku nu ne rawda min riyaadil janna maanaam dëgg la ci dëri àjjana yi yonte bi moo ne woon ak xabru benn mu nekk rawda min riyaadil janna wala mu nekk xufatu min xufari naam xabru boo gis benn mu nekk paxum sawara wala mu nekk dërub àjjana àjjana nag yàlla wax ci alxuraan ne ñëpp xas ba dugg moom luñ ñaan ak luñ bëgg ma fekk leen lahum maa yashaa'uuna fiihaa maanaam bu doo ren nekk nga ci bërëb boo xam ne àjjana àjjana joom boo fa duggee rek lahum maa yashaa'uuna fiihaa wala day naa masiid mooy loo bëgg yàlla fekk leen moo tax boo ñëwee ci bërëbu suñu waa benn ak njabootam nga fa tudd mu wóor la fi ay dëri àjjana la bul sikk ne fi loo fi laaj mu jox la ko moom suñu borom yaa ngi ci bërëb àjjana ñaareel ba itam gis nga ci alxuraan Zakariya Sayyidina Zakariya di ab yonent ba mu bëggee doom mu tëkko bis ba mu ñëwee soxna Mariam gis xéwal ya ko yàlla xéwal moo xam ne kii nitu yàlla la dala tàmm tàllal ay loxam ñaan foofu ci bërëb boobu hunaalika daa Zakariya masalan moo tax bërëb bu mel noonu boo fa demee na nga xam loolu te am ay tegin te yem ci ni ñuy ziyaare waa ju baax dañ cee dugal lu ci bokkut te njëkk loo man ci jàng alxuraan ak xasida ak loo man rek nga jàng ko te def ko addee sëñ bi doo ko ñaan say soxla bañ a def ngir say soxla texe bu ko defee itam am na yu bëri bi ñu siyaar yu bëri ca dëkk ba yu mel ne am na yu mag yaag ak aynu raamati aynu raamati ndox la moo xam ne mu am solo la suñ dajee def ñaari xasida ci biir xasida yooyu ñaan na ci ñaan yoo xam ne jar na kenn ku ne sax ba mos ca ndox ma moo tax murid bi ne faw ñu dem fa wax na ne yaa xayra mu'tin naafi'in razaqi dumma fuaada ra dumma fuaada saalibin minha ila afidati alladina faazu bil ila mboolem xol ku ci mos rek na nga ko jël boole ko te xolub gaa ñu texe moo tax loolu jar na mos ca ca ndax moom mu dugg sa sa biir yàlla yàlla defal dégg ak toog maa ngi jégalu baax wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Amadou. mu tàggu bu baax a baax waxtaan am solo yi.